والقلم وما يسطرون bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy teewlu fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi fii ci ndar ci daara yi Serigne Mor Diop mi nga xam ne kaana xaadiman lil quraan liggéeyal alquraan liggéey bu am solo mokkaloo fi ay junniy nit ci alquraanul karim waaye itam yar fi ay nit ba tey ñu yor ay daara yu bare bare bari ñu ñëwoon fi nag tey mu nekk invité d'honneur bu cérémonie bi nga xam ne ci lañ war a teralee ñi nga xam ne mooy ñett ñi jiitu ci concours yaatal mbindum alxuraan bi nga xam ne compagnie Serigne sekk taxawal na ko euh, war a dugg ak yéen ci biir lépp loo xam ne daara ji am na ko comme histoire waaye lépp loo xam ne daara ji am na ko comme jaar-jaar ñu war cee waxtaan ak ki nga xam ne moom lañ fekk muy seriñ Khayri Diop mi nga xam ne tey mooy xalifaam ñu war a waxtaan ak moom ci biir incha allahu rabbi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 إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم sadaqallahul azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaakaar naa doy na sëkk rek nga ne ki jëloon lauréat amiru shuara di Mouhamadou Lamine Diop ci daara ji lañ ko tàggatee yaakaar naa doy na sëkk nga présenté ko waa àddina concours la boo xam ne international la àddina yëpp daje fa raw gàdd ko ki ko jëloon ci daara ji lañ ko lañ ko tàgg lañ ko tàggatee tey nag ñu toog ak xalifaam muy sëriñ Ahmadul Xayri Diop war a waxtaan nag euh, yéen ci lu jëm ci sëriñ Mor Diop dundam ak daara ji nan la sosoo ak ba fi mu agsi nii tey salaamaaleykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu fii mooy daare sëriñ Mor Diop mm-hmm. Mor di koo xam ne kii njàmbur njàmbur la dëkk njàmbur la bàyyi ko woon ñëw ndar waaye sosowu ndar bi mu bàyyi ko njàmbur ñëw ndar doon seet si way juram nijaayam kuñ daan wax Serigne Jibril Diop mu ñëw seet si ko bu mu dikkee am fi ay fan xelam nekk ci yewee delluwaat waaye mu xool nijaayam daal mu wéet lool fekk na boobu sax tàggoo na sax ba nijaayam jàppal ko bis gannaaw gi la dellu si waat ci nijaayam ne ko man de nijaay damaa amoon xelu toog damaa amoon xalaatu toog wét li la ndax dangaa wéet nijaayam ne ko ah boo ko defee de moo gën bi loolu amee it nijaay ji xam na ni kii jàng na alquran te xam na ko mu jël lenn ci njabootam jox ko nee na daan def bu jàngalee alquran ba wàcc daal di dem jëli xam-xam maanaam jàng ay dër si xam-xamam balaa trois heures mu dellu si nekk ci xale yi jàmm gën googu it fa la tàmbali dëgg-dëgg am daara joo xam ne daara la bi maanal kalima ndax fee mu njëkkoon a nekk moom kër la woon waaye nag fii nag moom mooy daara ji moom ndax daara jooju ñu bëree bëri jàng nañ fa te it muy daara ju yàgg joo xam ne sëriñ kan yàgg na fa lool gannaaw bi mu fa jógee nag la fa sëñ Mor toog ci ndigalul nijaayam ji ñuy wax sëñ Jibril Diop foofee daal dëgg-dëgg moom mën nañu wax ne sax fale daaray alquran ji sosoo ñoom amoon balakoos di ko fa fekk si waa koñ bi di jàng si muy dem ba mu yàgg mu commencé di am ay dongo yoo xam ne ay dongay ajoor lañu dañuy bàyyi ko ci bitti ñu war a dëkk si ci daara ji di jàng alxuraan. Mhm. at mi ko sos tam mhm. dégg naa ko lu bari muy wax cinquante de mhm. daara yi moor moom dañ daan boole njàngum xam-xam bi ak njàngum alxuraan bi xale bi tàmbalee ko wala ban la ci njëkk a tàmbalee. fii itam comme daara yi ci des rek dañuy jàng alxuraan ba noppi. war a tàmbali jàng xam-xam. ndax loolu xam nga mooy méthode bi nga xam ne moom la mag ñi xamoon. moo doon doxinu daara yu njëkk yi. jàng alxuraan ba pare bu fekkee da nga mokkal. nga jàng fekkeen dem nga xam ne yow doo mokkalit nga war a jàng xam-xam it nga jàng xam-xam nga ñëw dikkal ci yitte woogu sëriñ Mor yitte woon xam-xam waaw sëriñ Mor day ñun ñëpp xam nañ ci moom bëgg gu bëggoon lool xam-xam moom moom lu mu mas a lu lu lu mu a jublu mhm. xam-xam moo ko ci gënal macha allah moom daf maa mas a wax ma gis nga nag ndax dafa am benn bis boo xam ne kenn yi njaboot gi mhm. ba ma demee man ba yëg ne moom mii xam naa ne xelam mhm. du war a mën a mokkal alxuraan war naa jàng métier war naa jàng leneen bu ma dikkee wax ko ko dana ma gis nga Ahmadou man de xaw ma lenn lu dul xam. ndeysaan boo xamee leneen nag bay boo jëmale ko ci waaye man xaw ma leneen. maanaam moom dinaan def mu taala mm-hmm. foo ko fekk yaa ngi ko gis mu ngi yor tey boole di bind nag. Mm-hmm. yenn saa mu ci ay masaayal yoo xam daf koy bind def ko ci këyit. Mm-hmm. bàyyi ko ci biir téeram. bëgg xam-xam lool. daan soññ it xale ngir ñu sàkko ji xam-xam. rawatina ñi mu jur nag. ndeysaan moo tax ñi mu jur mën naa la wax ne la. daanaka ñëpp. kenn ku ci ne mën ngaa taxaw taxawaayu imaam. bokk na ci li ñu tax a ñëw. mooy mbind mi mbind moom ndax daara ji mi ngi ciy wéy ba tey comme ni muy wéy ci mokkal gi. waaw moom day li am te am mooy jamono. léegi xale yi jàng. dañ leen seeni seen wajur dafay ne yàkkamti. àddina yàkkamti leen. moo tax njàng mi di gaaw lool. ndax bu njëkk. da nga daan gis dong boo xam ne am ci daaru ñaar fukki at. nga xam ne day tàmbali jàng tey commencé jàng bind tey. xale bi daan tàmbali jàng tey commencé jàng bind tey. léegi dafa am ay jafe-jafe maanaam xale yi seen i waajur dañu leen a yàkkamti. waaye nag teewul nag ba léegi. ñu ngi sàmm mbind moom maanaam am na ñoo xam ne ñu ngi bind. di beqi di jàng bind bu baax di beqi bu baax ba léegi mi ngi am ci daara ji moom. te mbind mbind moom mooy li nga xam mooy saxal alxuraan la. ci gàttal daal sëñ Mor daal. li ma ca xam moom mooy léppam mooy diine. ak jàng xam-xam alxuraan ak xam-xam Farimata Seck moo amatu Amadou Farimata ak no Farimata Seydi Hadji Malick ak Sëñ Touba dëgg la muy satu Seydi Malick euh, Seydi Hadji Malick ak Sëñ Touba ci wàllu loolu nga wax ci wàllu tàggat nit ci mbindit bu la jàngalee bu déglu la man déglu na ma fi ma tàmbalee neuf heures maanaam mu toog di ma déglu may tari maanaam ba quatre heures maanaam man a minal jinnati wan waaw booy bind itam bu lay beq di la tàggat boo bëggee xooli kaamil benn baat booy agité wa naan nii la la danaa defal la joy ñu corrigé la <laughs> dafa lay jàngal ba nga mu ne la léegi man nit ki ko jàngal matul ci moom seede da ngay dem ci keneen beneen kaang mm. mën alxuraan ti ndar mm-hmm. maanaam ñoo ngi daan boo koy oculaire ci kër Alaaji Moodu Jum bu ko defee boo ne bismillahi rahmaan mu ne bi yam fasado njeego karaxada julli kaw bi lan waan rabbi kullihim dubbi mbargaan dawaa bi kullihim lahu bil xëyri ca aadiyaat nga ne lamaa yi nga xam ne duñu sàdd mhm. te lamaa yi ëpp na ay téeméeri téeméer mhm. mu ne lamaa yi tafajaru ak lamaa yi sàqu ko lamaa yi xëbtu yëpp a nga mbar njaay lamaa aatay naa ko ma nga imran lamaa yi loowu fi ma nga xóot lamaa jàmmewoo nga jaal lamaa mataawoo nga soxrif lamaa takkumoona ak lamaa taxayuroona yëpp a nga xalam lamaa aleha taarix allah bi may tàbbi si loxoom sama papa di ma indi moom mën naa ne booba xëy na ay juróom benn at si lay toll mhm. ma nekk ci moom ci ëttam mu jàngal ma yar ma teg ma ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu baax wi mhm. alxuraan moom yàlla def na ni teel naa ko géeju mu doon jur woo xam ni sama wayjur dafa nekkoon ci moom ci daara ji mhm. jàppale ko ci daara ji booba jàmm gën metti na sëriñ Daam Jóob mii nag mooy way juru Mouhamadou Lamine Diop mi ngeen xam tamuy amiru shuara ana yan kàddu seere nga mën a indi ci sëñ Mor ki ngeen may laaj mooy sëñ Mor man mooy sama lépp mhm. dafa mel ne sama way jur jur la def ci man mhm. waaye leneen lu dul moom sëñ Mor moo ko def ci moom ndax dafa doonoon najaayam la woon waaye xaritam la woon mhm. daf maa waxoon ne day man day fi ñu nii damay mag yaay sama wéttal fii maa ngi fekk maa ngi dund moom mënu ma laa jox sama dund waaye nag bis bu fi jógee am naa sama jabaar bu nekk ndar moom laa la jox moom laa bëgg dem ci moom mu yar la. 70 ba léegi amul fenn fu ma yendu wala fenn fu ma fanaan li muy dund te du du kilifte fa moo fa moo fa teg. ndax euh, bépp dong boo xamee ni sëñ Mor moo la yar. du gisee ci yow ni da nga war a nekki boroom xam-xam ëllëg sëñ Mor du xaar say mooy say waajur moom mooy jël alalam mhm. def ko ci yow ngir nga nekk boroom xam-xam te am na ñoo xam ne sax sëñ moor ci boppam mooy moo leen daggal billet avion pour ñu dem ndax bi ñu demee amuñoon bourse mhm. waaye sëñ Mor moo leen moo leen fa yoroon alliwa bii mu yor mooy alliwa gi sëriñ Mor njëkk ay téye jàngale ci alxuraanu karim man la jëkk ni neel ba topp ci sama benn jarwaay bu ne ci koñ bu ñu wax Ablaye Ba topp ci sama mag euh, soxna Ami Diop topp ci suñu dëkkandoo bu dëkkoon fi maam Fatou si di suñu jigéen ñu ñëpp yàlla dogal na ñu ngi fi fii ñu la nga Dakar ñu la ngi fii mu doon nag barab bu barab bu barke la bi mu dikkee ci daara ji nag coono bu ne jànkoonte nag fee moom waaye mu muñ ngir yàlla rek tax inna allaha ma sabirina yàlla ko wax mm-hmm. nee na daanaa fi toog ay fan duma añ nee na ma mujj daanaa fab ceeb di ko def ci pot yi di ko gëj fal bàyyi ba xale yi dem ma yii ko bala ñoo dellu si nee de nee na daanaa tegale ñetti weer di ko woor ca la koy sabab mooy ñàkk lekk ma xam ne bu ma li gannaaw duma lekk ba bëccëg mën naa ma wa far woor gannaaw fi ñu jaar yëpp tey daara ji ñu toog tey boo ñu doon wax fu mu tàmbalee ak lu ko indi lan lan nga ñuy wax bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi dafa doon ku ku rëy yitte mm-hmm. moom toolam ci lislaam da ko yemalewul fànn mm-hmm. moo tax bokkoon na ci ay yitteem yaatal liggéey bi defal na ay daara ci wërsëgu boppam ah. bi ma jàngee man ba yor ay lijaasa ñibbisi ci Sénégal bis daf ma wax ni ma dama bëgg a dem Touba te tey jii sëñ Saliou laa bëgg a giseel. est-ce que. daan na sëñ Muntaxa nag masoon nañoo tase Louga. ñu nuyoo foofu nag sëñ Mor nee na mu ne ma sëñ Mor yitte joo am Touba dee ma ko wax. ma ànd ak yow di ko dox ba mu sotti wala ñu ànd tële. allahu lii dama waxoon keroog. ba ma fa jógee ñibbi ndaar may xalaat waaw man jan yitte laay laa war a wax sëñ taxaa mii. nee booba rek dugg sama xel liggéey bii ma yaatal ko ba yóbbu ko Touba. kon keroog ba mu jógee ne dafa bëgg gis sëñ Saliou dafa daal ñëw sëñ Muntaxa booba ñu ñu maa maa ngi ànd ak moom. Mm-hmm. ci saasal daal di moom sëñ Muntaxa daal di wootee ci kër ga. bañ demee sëñ Muntaxa ci boppam moo présenté sëñ moo Mor sëriñ Saliou wax ko lu muy def ca ndar liggéeyam bi ci diine ci alxuraan ci yoonu sëriñ Touba bi. di ko ko wax ba sëñ Saliou am mbégte lool sëñ Mor doo di agsi moo doo ko agsi nag tàmbalee wax moom ne ko Mbàkke di ndar laa summi ko woon di fa liggéey booba ak tey yàgg na dem ma nag ba jeex naa waaye dem naa ba xam ne fa waaye liggéey la yàlla Tuubaa yi gën a jekk moo tax am naa yéene ñëw futti ko ànd ak yow sawaar wii nga nekk liggéey li la bis dikk na fi moom sëriñ moor ñuy toog ba guddi kar sedd mu ne man nañu ànd wër barab bi ñu ànd wër ko ba mu yàgg mu toog ci pénc mi jublu penku ne ma Moustapha fii mooy Babou Rahma ma xam ne kii mi ngi ci xaal mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma lépp lu ñuy xamlu ci xam-xam bu am njëriñ barab bii di ko xamle mu ne ma insha alhamdulilah ñu ngi fi jàng alxuraan di ko tari. am na fi daaray góor am na fi daaray jigéen. alhamdulilah àgg na ci ren ji sax ubbi naa collège boo xam ne ñi fi am certificat mën nañ caa jàng continuer jàng. te it dama ñaandoo woon sëñ moor ba tey moom laa teg sama kanam. incha allah bëgg naa loolu mu wees foofu ab lycée na fi ñuy am bac bëgg naa sax dem sax ba ab faculté di bànqaasub université na fi. yëpp ñu ngi sama bopp bi mhm. euh, ma di ko sukkandikoo rek ca ca ca pastéefam ba ñaanam gu réy ga mhm. ak ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moom la aloon di dox barab bii mhm. kon tey ji macha allah ni ma ko waxee mu ngi fi jàng alxuraan ko tari góor ñi jigéen ñi am na fi franco arabe bu fi nekk xale yi di jàng ñetti at di génn di am seen lijaasa am na fi njàngum majalis am na fi sax formation professionnelle maanaam jéem ma tàggat xale yi ci ci liggéey waaw tàggat seen i xel ak seen i cër ci nangoo liggéey wala mee collège ba am nañu du ñu jàng li ñuy jàng ci école yi. Mhm. jàng arab en même mhm. temps di jàng lu mel ne informatique. Mhm. ak wàllu électricité lu ñu ci courant. xam ne sama yitte mooy gën koo yaatal. ba fànni métier yu bari dugg ba nga xam ne. incha allah ko génn ci daara ji. soo jàngalee ji wutit da nga am loo mën nga cee jàpp. Mm, Cheikh Moustapha Diop ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax di ñaanal Serigne Mor Diop yàlla yàlla yokk leeram ak mboolem njaboot ku mu fi bàyyi ak képp ku fu mës a jaar ci daaram rek. la ngay sàkku ci alquran yàlla na ko yàlla defal di nuyu sa mbokk yu baax yi fi fekk tam in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bi ni'mati rabbika bi majnun